ñu fas yéene ànd ak yéen suñu dar tuxfat ataayib al anfas fi madhil qutbi abil abbas muy diwaanu cheikh ibrahim ibnu alxaaji abdullah attijaani radiallahu anhuma ñu taxawoon nag ci suñu fukkeelu dars ak ñaar kon tey suñu fukkeelu dars ak ñett ñu ngi taxawoon ci qasida bi nga xam ne matlaam mooy haaja fi lqalbi listiyaaqun qadimun lilladi alaahu aljalilu alqadim ñu taxawoon ci ci bayti bii nga xam ne cheikh ibrahim radiallahu anhu wax na ni mu ne mahaqat zaatu cheikhi zaati wa awsaafun lahu awsaafi fa kulli adimu baane mahaqat far na effacé na zaatu cheyqi jëmm ak sama sëriñ bii zaati yi sama jëmm ji man ibrahim waxoon na fële ne maani abil abbas afnal maaniya te dafa bokk ci maaniyam moom ak maani abil abbas jëmm jëmm ci biir maanaa yooyu la bokk bàyyi nag ne abil abbas jeexal na samay maanaa yépp fii mu ñëw limal ñu benn ci maanaa yooyu nga xam ne abul abbas jeexal na ko ci moom muy benn muy zaatoom jëmmam gi wa awsaafun lahu jeexal na samay melo ba ay meloom awsaaf yi ñooy samay melo fa kulli sama lépp adimun dafa ñàkk lii mooy fanaaw booy jeex da jeex tàkk جهتي الذات جهتي الصفة جهتي اسم باي باب وخيلي ممني نبوة مؤمنة كفيوان أهان كي بوده من يتي ديوان يمي تقيه صلى الله عليه وسلم لنا لوهني قد استأصل المحبوب كلي وجملتي وآصلني والغيريات تولتي وها أن هذا العبد غيب إلهنا وقلب الورى والذات فيه تجلتي لنا نكيما صب jël na sama lépp jël na sama genn wàll jokkale ma ci tey yàlla bi lu yàlla ma sànni ko sama ginnaaw ginnaaw mu ne nag ba ma demee ba yegg foofu laa war wax ni wa ha an haazal abdun dama ne ndekete jaam bii xaybu ilaahina mooy mbootam suñu borom wa qalbul wara mooy xolu mbindeefi wa zaatu fiihi tajallati zaatu ci moom lay feeñee loolu di fanaa ubum jeex ci yonantu bi sallallahu alayhi wa gis ni bu yonantu taxawee haahuut ak laahuut ak malakuut ak jabaruut lépp ci biiram lay ne bu dawru boobu jeexee maanaam buñ bu bu bu maqaama boobu jeexee maqaama nubuwa mu war a am beneen wàccuwaay muy wilaaya waaye bu ñëwee foofu daf fay jeex tàkk moom la ñuy wax ni ne sama jëmm ji jeex na ci jëmm ak Cheikh Tidiane gi samay melo jeex nañ ci melo Cheikh Tidiane gi sama lépp dafa seey ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ne fa ana zalika alhabib man may boobule soppe muy Cheikh Tidiane mata zubtu fiihi saa yu ma seeye ci moom wa zaaka loolu almaruumu mooy sama càkkuteef amri giñ naa ko ci sama dund fa tabadda feeñ na al qutbu qutbu bila di Cheikh al farid ki di kenn araahu ma mujj di ko seen aynu ayni ayna muy sama jëmmi jëmmi gannaaw sa joxoñ na baane ko masaadiru ayni l ayni innaka aynuha wa insaanu ayni l ayni tibta bi mufradi ne ko yow yaay cosaanal jëmmi jëmm yi jooju la bàyyi di wax ni masaadiru aynil ayn innaka aynuha yow yaay jëmmam ja cosaani jëmma jëmm yi yow yaay jëmmam ja cosaani jëmm yi mooy Cheikh Tidiane ndax ci moom la jëmm njëkk feeñe mu ne ko innaka aynuha yow yaay jëmmam ja mooy tekki waxu baay bii di wax mi bii muy wax ni su ma su fa tabaddal xutbu xutbu bi feeñ alfarid bi di kenn araahuma gis ko ayna ayni muy sama jëmm jëmm ji waa ji ne bàyyi tib tabi mufrad tey nga ci nekk gi nga nekk kenn bàyyi nag loolu lay wax fii ne wa zaaka loolu xaqun dëgg la samimun bu di aji dëgër waxtiraaqi fil qalbi waxtiraaqi sama lakk ndax mbëggeel fil qalbi ci sama xol bi daari sama giiru jamono la wama lii soxlawuma min shifaain ci kuy saafara sama jàngoro illal mu xayaal dul xar kanam nga xam ne xar kanam la goo xam ne muy alwasimi xar kanam gu taaru gu taaru gii rek moom laa soxla ngir saafara e, sama jàngoro man Cheikh man Cheikh Ibrahim radiallahu an intasal e, kibdi ma alladi kaabattuhu fi ishtiyaaqi yuftika xaalil muqiim baane intasal bu fekkee da ngay laaj kib di malladi kaabattuhu jànkuwaan coono yi nga xam ne jànkuwante naag moom fistiyaaqi ci mbëggeel gi ma bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne yuftika dina la tontu xaali sama melo almuqiim bi nga xam ne dafa sax ci bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waddanaa sama faiblesse wa suhaadu ak samay fog muy ñàkk nelaw guddi wal garbu ak samay baagi rongooñ ashhaad yi ñooy ki may seede sama seede yooyu nag baane udulan ñu jubleen ñu màndu leen fahkum na nga atte fa anta yow alxakimu yaa juge bi yow Cheikh Tidiane radiallahu an muy wax yu doy waar baane xustu làq naa tamyisan ak ràññeeku mu ngi lay jàngal Cheikh tijaan di jëfandikoo naxwu mu ne xustu làq naa tamyisan ak ràññeeku faailal madhi mbir moom may kii def ay tagg kii ràbb ay tagg am sama giiru dund wala giñ sama dund wal mudaafu ilayhi maay ki nga xam ne jokk nañ ko ci mbir mi wala yokk nañ ko ci mbir mi shawqun ngir mbëggeel xadimun bu di aji yokk man tamyiz la faail la mudaaf ilayhi la bàyyi mu ne fax ku mu ne ngeen atte fa inna man bàyyi jadirun ku yelloo bi nasrin ñu nasab ma wartifaayin ku yelloo laa yi tamit ñu rafaa ma maa xafdin ku yelloo ñu xafdu ma maanaam ñu maas ma kasara loolu ku ko yelloo man Cheikh Ibrahim radiyallahu an bàyyi ne loolu laa yar loolu kenn du ko sikk wala nekkul loo xam ne lu jaaz la aadalu xalqi ki may tagg mooy ki gën a màndu ci nit ñi muy Cheikh Tidiane aalamu naasi ki gën a xam ci nit ñi cheikh mooy sama sëriñ anta yow faaruquna yaay ki teqale diggante neen ak caaxaan waaye faaruquna yaay ki dox ci diggante nubuwatu xilaafa assari ki nga xam ne moom mooy ki yor mbóot muy dox al mustaqim ki nga xamne moy ki jub wal jawaadu Cheikh moy ki tabe al karim moy ki tedd anta yow ki nga ki tabe ta tedd anta yow la wa wahal yaxfiru ahdal ahbaabi wahal yaxfiru ahdal ahbaabi juudun جود كريم وهل ndax dina نسيري ahdal ahbaab yi kólloreg soppe yi juudun jile tabe karimun bi di aji tet wal takfi na ma fegal liya ñeel ma sayban aji waame jamimal maanaam na ma fegal euh, sayban ab waame jamimal ataaya na nga ma may may yu bëri surtout ci lay mujj aswaati ci ñi nga xam ne ñoom ñooy borom ak mbëggeel da ban ba euh, euh, ban ba faaw ahimu may gëlëm soo ma mayee maanaam soo ma fegalee mboolem samay njàqare may ma mboolem may man ci laay continuer faaw di di di di di sax wala di gëlëm ci bëgg la yow Cheikh radiallahu anhu bàyyi ne aatini may ma maa laa yanbagi li siwaa yi loo xam ne yellut ci keneen ku dul man fuqtuma kawe kullal ussaaqi mbooleem ñi lay bëgg yow Cheikh Tidiane yaa zal xamimi yow ki nga xam ne yaay sama soppe bi wala yaay ku ku baax ki matlabi sama càkku téef an akuna mooy ma nekk saaqil qawmi di naan saaqil xamr di naan lale sàngara ñu ne ko ban sàngara mu ne xamruhu sàngara Cheikh Tidiane gi euh, xamruhu li may sàkku ci sama dund mooy ma doon koo xam ne maay nandale sàngara ak Cheikh Tidiane gi dannuhu dam saanam ga wa min nii ci man lay tukkee an naay mu mboolem xéewal yi loolu mooy sama càkkutéef matlabi sama càkkutéef an na ma doon xutban di xutbu faridan ki di kenn lil baraaya ñeel mbindeef yi wa gayra haada ak yeneen may yu dul yii ngi koy séntu yow Cheikh Tidiane ci yow radiallahu anhu fuqta aqtaabi yow Cheikh Tidiane yaa kawe mboolem xutbu yi fajal na nga def muhibban aji sopp faiqan aji kawe lil sa soppe bii na ko def faiqan muy aji kawe lil aqraan yi ay maasam fii ka ci yow ya hiimu la gëlëm moom soppe bi yaa abal abbaas eh yi e baayu abbas alkarimi ki di aji tedd fa daarik dabaatal aashiqan ki nga xam ni dafa bëgg mbëggeel bu jéggi dayo ba mbëggeelam bi sax naabahu dal na ko eh, dal na ko azabun mbugal alimun bu di aji tar ci mbëggeelam gu metti googu la jëlee mbugal gu méttee métti amru kullul wujudi mbiram naabahu dal na ko anwaaul azaabi xeetu mbugal yi azaabi yi sama mbugal yatalaasha anhu al azaabul jahim maanaam sama mbugal mi may yëg ci cofeel gi nga xam ne bëgg naa la ko dafay seeyal mbugalum jahannama ci ma moo may fegal mbugalum jahannam amru kullul wujudi mbiram bépp nekk teef nekkitee fi yëpp fii kaf fi seen mbir mi ngi sol tënk ak sama sëriñ bii di Cheikh Tidiane min ci yow riixu samumi la ngelaw lu tàngali di jugee muy ngelaw ak safara wa min ci yow yi tamit an nasimu la bànneex di jóge kon ku la bañ tàbbi safara ku la bëgg tàbbi ci xéewalal àjjana matla bi sama càkkutéef atful imaam yi mooy ñeewantek ilimaan bi sarean ci lu gaaw wa ak yoon woo xam ne ilal huda jëm na ci njub mustaqimun bu di aji coow bu jub wala bu jeng wala lépp lu jeng mooy lu jub kocc mu loolu di ñu tuddal juróom-ñeenti xaraf juróom-ñeenti xaraf yooyu ñun ñëpp xam nañ ni diine dafa am ñetti maqaama maqaama yooyu benn bu ci nekk am ñetti wàccuwaay boo leen boolee muy juróom-ñeent bàyyi nga koy junj ci juróom-ñeenti xarab yi waaye di ci junj leneen yeneen xeetu xam-xam yu gën a xóot yooyu ana lan mooy farqu ci diggante manzil ak maqaama manzila mooy fi maqaama bi di wàcc bu maqaama bi taxawee rek manzila amatul maqaama lañ koy tuddee kon fi mbir mi di wàcc mooy maqaama liy wàcc moom lañuy tuddee manzil bàyyi ne summa xaa un summa aydan xaa un topp ba tey xaa xaa mooy lan mooy xamrul mahabbati sàngarab mbëggeel wa xaa un ak xaa sariyaan ci lu gaaw xaa bi mooy lan mooy xadratul mahbub pay yëpp aji sopp bi muy payab yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ay càkkutéefam lay wax càkkutéefam bu njëkk mooy xamrul mahabbati sàngar ak mbëggeel ñaareelu càkkutéefam mooy xadratul mahbub pay yëpp soppe bi summa yaxsa topp mu muur xaynun xayn mooy lan mooy xaybul xaybi li faddu ci biir xaybu muy pays boobu nga xam ne mooy ardatul ama wa temr wa jiimun ak jiim jiim mooy lan mooy jamaalu Cheikh radiallahu anhu loolu bokk na ci càkkute bu bàyyi mu ne yeduumu na sax summa nuunun topp nuun nuun mooy lan nuun mooy nuun ak man la ñu nag anaaniyatu man ma maanaam li may sàkku mooy ma doon la yow Cheikh Tidiane radiallahu an min baadi nuunin ci ginnaaw ak nuun nuun ak ñaareel gi mooy nuurul xaqiqa al muhammadiya wala nuurul muhammadiya nuur ak leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa aynun teg ci ayn mooy lan aynu muhammadin jëm doon jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi wax na feneen ni walimlaa wa ayniya alyawma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwaay ana tee tey ma lii ma yépp lu ana lu ko tee te tey sama jëmm ji mooy jëmm ak yonent bi sallallahu alayhi wa sara sirruhu mbootam gi royaltal na fi haykali ci sama jëmm ji wa yi ak ci sama jëmm ji ba tey kon bàyyi ngi ñaan summa siinun topp ba yow nga may ma siin siin mooy lan mooy sirru sayidul wujud secret sayidul wujud summa topp miim gu mujj gi mun nga ko tuddee mahabba mun nga ko tuddee madad juróom-ñeent yi la bàyyi di ñaan ci way lay wax summa aydan xaaun wa xaaun sarian summa yaxsa xaynun wa jiimun yaduum summa nuunun min baadi nuunin wa aynun summa siinun wa baada taylika miimun bàyyi ne summa lii topp mu ñeel ma fii ka ci yow matlabun càkkutéef boo xam ne duma ko tudd de waaye anta yow tadri xam nga ko wa uyuuna al aadaa yi jëmmi samay noon tu siimu anni maanaam ci may yooyu nga may may ci nga may musalee ci ñoom haaka jëlal dikran bi la jànq wan xutta nga ommat lahaa ñeel ko almahra can cheikhi yow sama sëriñ lil banaatil abkaari ñeel na jànq yi nga ñeel na eh, soxna jigéen ñi nga xam ne ay jànq lañ mahrun can jasimun bu di aji mag yama rawatina dikrun jànq boo xam ne wasfuha meloom xiina yudda saa yu feeñee wasfu saa yu feeñee du ma fa gis lu dul wasfuka sa melo al muntaqa li nga xam ne mooy bu ñu sellal al jamil bi di aji rafet al karim li nga xam ne dafa tedd laysa fiha aybun amul benn ayib si waa faqdi kufin lu dul ñàkk nawle jongoma ji wala janq bi benn ayib rek la am mooy ñàkk nawle wala ha al kufku am na nawle nag nawlem googu anta mooy yow يا ذا الزعيم يوم قمنا يو يا سما نجيب وصلاة جل جل على إمام البرايا يالنا واتتي إلمان مدلسي ثم علم توبتي نجم والصحب أكسهابا كل نم لب نجوم أي بدولة وله نيالنا رضي الله عنه أكابد ما أكابد من غرامي وصحبي نوم واستلقيامي baane ukaabidu maa ngi jànkuwanteeg maa ukaabidu li may jànkuwanteeg min min min xaraami ci cofeel baay ne fa yaa siqlal mahabbati waa fuaadi wa yaa xamral mahabbati waa fuyaani fa waa fuaadi ee yow sama xol wayaa xamral mahabbati ee yow sàngar ak mbëggeel wayaa huyaami yow sama sang sakibtu mandina bi xandara bi xandari sawqi dahri ci sàngarab mbëggeel sama giiru dund wa baadul qawm boobu jamono ñenn ci xeet gi yaskuru ñu ngi mandi bil mu daami ci damsaan gi فما أهلا أتنيخ الغرام بجيل وويحا زي لتسكاب المياه وويحا تسكر نيلنا ولو ونا سمك كارت زيه تلي لتسكاب نجير لتسكاب نجير صوتي المياه على الضرام في تاكي تاكي woo naa toskare képp kuy jël ndox di ko jéem a sama mbëggeel gi ana yi samay coono fistiyaaqi ci sama fistiyaaqil xatmi ci bëgg xatmu bi dahri sama giiru dund wa muz dahri yi déppi sama jamono maanaam sama giiru jamono fa suknaahu dëkkuwaayam ba moom moom moom moom kii ma bëgg xiyaam yi mooy samay tànt usaayidu maa ngi ñaan an imaami wala maa ngi laaj an yi ana sama sëriñ ana sama ilimaan wa huwa moom amri giñ naa ko sama dund la fi kabidi mi ngi sama xol wa xalfi mi ngi sama ginnaaw bal li fi ne sax amaam yi mi ngi sama kanam ki may wër sama ilimaan boobu mi ngi sama xol bi mi ngi sama ginnaaw mi ngi sama kanam mooy ki nekk ci nubuwa nekk ci wilaaya nekk ci xilaafa taxaw fa taxawaayu kenn baay nag ne usaa'ilu maa ngi laaj an imaam yi ci sama limaan wa huwa te moom ay nii mooy sama jëmm ji fa maa ay nii siwaa aynil imaam yi sama jëmm jii duut lu dut jëmm ak sama ilimaan jii di Cheikh Tidiane radiyallahu anhu usaa'ilu maa ngi laaj an imaam yi ci sama ilimaan wa huwa te moom unsi mooy sama wéttal wa masxuubi mooy sama àndaale ilaa yawmil qiyaama ba keroog bis penc ba keroog bis pénc moom lay àndal fa barhaamu barhaam mii ubaydun as njaam la huwa moom milkun ak moomeel la lihaalal xutbi ñeel xutbu bi jax jaaxin xut boobu nga xam ne sang la boo xam ne dafay gaawtu ci teral nit humaamin ki nga xam ne sang la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 wa sahbi te boobu jamono samay saxaaba nu wamun ñi ngi nelaw wastal xiyaa xiyaam yi ci digg xayma ya muy tànt ya bàyyi yu saawiru nii dina ma jànkuwanteloo xumayel wajdi sama tàngooru cofeel layli sama guddi fa yaa ajaban woonaa sama yéemu fa layli sama guddi benn guddi alfu amin mi ngi tolloog junni at ndax mbëggeel gu métti rek ku ne xam na ni nit ki su feebaree guddi guddi googu day yàgg ci moom lool ndax métit yi nga xam ne mu ngi koy yëg bàyyi nag métit yi muy yëg mooy métitu mbëggeel gi mu bëgg Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yusaamiru nii dina ma gonnaarloo wala dinaa gonnaar annu ànd ak biddéew yi fa bittu ma fanaan layli sama guddi ka naabiratin ma mel ni annaabir azzubiyaani jafa jëf niyal manaam yi jafa wow na jëf niya samay maru bët manaam yi samay nelaw samay maru bët wowal na samay nelaw maanaam guddi googu damay fanaan duma nelaw wa cheyqi sama sëriñ bi alxatmu ki kaste li nga xam ne mooy ràng ak nubuwatu ràng ak wilaayatu maxbuub yi mooy sama soppe dawaaman faw yukallifu nii dina ma togg xaraaman ay ab mbëggeel si xaraamin ci biir mbëggeel mbëggeel ci kaw mbëggeel rek fala wallahi giñ naa ko ci yàlla ne laa tul fii doo fekk sharikan ab nawle lahu ñeel ko fii zal fuaadi ci bile xol madad dawaan yi ba faaw doo fi fekk Cheikh Tidiane ak keneen moo tax ñi nga xam ne dañoo foog ni Baye Niass du Tidiane wala taalibi Baye duñ Tidiane bañ leen di wax ay ñeseen nañ xam ni maqaam ak ñeseen beneen maqaama la ci biir Tidiane yëtu waaye bàyyi ñas ak i taalibeem buñ dul tijaan tijaan amul bàyyi Cheikh Tijaan rek la gëm wax na ni ñaari sëriñ laa am sama sëriñ ci zahir mooy alquran ak sunna ndax ay texte la sama sëriñ ci baatin mooy Cheikh Tidiane ndax Cheikh Tidiane du zahir baatin la du wut jëmm jooju doon dox paas déedéet waaye boroom xadara boobu ñuy tuddee xadaratul jabarut wala borom xaqiqa boobu ñu tuddee xaqiqatul ahmadiya kooku mooy Cheikh kon Baye nee doo fekk mukk ci sama xol bi nawle boo xam ne dama koy boole Cheikh Tidiane ba faaw laqad qattala ray na alhumaamu sama sang bi ubayd al isqi njaam sa mbëggeel binaari shawqi ci safarak mbëggeel daa iman faaw istiraamu moo maanaam safarak mbëggeel mooy sàkku toujours ci sama xol fa fa fa asdid na nga taral bil mamaati ci dee bi naari shawqin maan taralal sama dee ci safar ak mbëggeel gii bila xawdin wala jalbil xasaami maanaam taralal sama